yu wax chaque jour di ko mhm. plaider mhm. mooy les artistes vivant avec un handicap mhm. duñu xaar lolou du cas buy xaar man lolou sama sama sama vision la té dama ci yamalé dama ci kit pour ñëpp yamalé ci pour ñëpp bi may def sama festival artistes yëpp la contacté ne leen ñëw leen ngeen jouer commencé ko pap Niang ba ci souf su né pap Pape rek ñëpp amul artiste bu fa jouer wul kéro bien sûr du ko fa ñëw fay nañ la hein ah

tey ku ci mel ni Mame Boye Diao mhm. dama ko xam sa fait des années mhm. daf ci jàpp mhm. te dama ñëw daf ma sax daf ma doon sax ruube ne ma maman politique nga politique politique politique a na la toog nit a toogal nga noppal sa yaram <laughs> ma a ko dama lay gagné uh-huh. xam nga mais pour wax la euh, acteur culturel handicapé yi dafa am benn gëdd boo xamante ni chaque jour dama koy wax dañ ko manqué dañ ko manqué c'est bi nga Yves gis nga nit ki boo nekkee ci réew dangay xool ñi xamante ni ñoom ñoo gën a néew doole. nga dimbali leen accompagner leen. parce que am na artistes yoo xamante ni soxlatuñu ndimbalu ministère de la culture. non nañ ko wax. gars yi des fois dañuy juum ah. non dañuy juum des am na aman ah, tey su ma demoon tey macha allah. am sama oto am sama kër. di liggéey sama liggéey. Mhm. mais soxlaatoo ministère bi dimbali ma. Mhm. mais jeune bi nga xamante ni mi ngi ñëw amul mhm. dara commencé na. mais kooku war nañ ko jàppale. donc fonds yi nañ ko jàppale acteurs yi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw. macha allah actuellement lan lan lañ la tabb ci ministère bi. waaw pour mu leer pour nit ñi xam. yow ne ah, commencé nga am xaalis aw commencé nga am xaalis nag waxuma dara maa ngi nii <laughs> maa ngi kon nag nañ wuyu ma rajo sañoo fi taxaw fii nag. yàlla xam na taxi laa ñëw bi may jël. sañoo fi taxaw fii. taxi laa jël li ñu fi wax yëpp wàccee taxi fii. c'est pas normal laa jël de ah. c'est pas normal de wax la suñu ministre bi jox ko oto. <laughs> taxi laa jël mooy madame Khady waaw nañ ma jox oto kon. taxi laa jël ah no ma jox oto nag. Ah, non loolu loolu loolu bu yow boo ko waxul sax dañ ko war a def parce que Mm-hmm. yaa ngi koy wax léegi yow say déplacement dafa am lu lu ñu la sas te mm-hmm. artiste sas la ko loolu dañ la war a yóbbala say déplacement ah, waroo ñëw ci déplacement ci ñëw émission yi ñu jël ay taxi c'est pas normal ah, ah la ma doon wax ñee laa laay waxaat fii tamit nañ góorgóorlu nañ leen muñal rek ah ñu xaar tuuti ñu xaar tuuti quoi na te changement bi sax mm-hmm. du nekk rek ci Mama Africa parce que man dafa am lu ma gëm mooy bala nga ne naam ne fa d'accord man loolu laa gëm macha allah alors mam doppa Euh, yow aussi yaa ngi jiite association di xeex ci wàllu cancer euh, ñëwoon ngeen fi semaine passée. après émission bi am na lu changé ci diggante bi. non dara changé wul nag. Mhm. franchement euh, li ma ci gën a mettitlu mhm. mooy comme li Baba wax sànq. Mhm. man émission fu ma waxee ci si yaay rek. man sama xol day sori. ndax à l'âge de 2005. Mhm. la sama yaay gaañu. ñu mhm. teg ci 3 mois. mars 2005 la sama yaay gaañu. ñu teg ci 3 mois sama papa gaañu. Mhm. te boobu bi muy bi ñuy gaañu man coiffeuse daa woon. yoroon salon. ñu liggéey ma ma tëdd 8 ans. non du ma jooyaat. <laughs> non c'est que su su may wax si affaire yaay rek. daf may dafay daf may daf may wala dafa sensible mun ma ci wax. man fu may fekk ñuy wax ay groupe WhatsApp ñuy wax thème yaay sax du ma dugg ci groupe bi. parce que xam naa su ma duggee naa jooy. léegi. Euh, depuis lors 8 ans suis de 8 ans mhm. si 8 ans c'est la nyaka sama yaay sama papa mhm. tolof tolof bi ba may daanu di jog di daanu di def ma am xam nga nattu bi ñëwaat dal sama kaw mhm. gisoo ndey gisoo mhm. baay gisoo soutien gisoo kenn ku la jàppale parce que mhm. amaana sama feebar bu doon euh, teel naa jóg kon amaana du egsi fii parce que dem naa mu commencé par tuuti ma am ñu ma waxoon envoyé leen message ne leen ma bëgg a dem hôpital nañ ma jàppale ma dem ñu vu ma fu ma doon jooy rek loolu moo ma doon jooy loolu parce que aw ma woon moyen bi ma demee di def mammographie bi kooku ne ma waaye lu fan nga toog ba egsi ma ne ko aw lu ma indi. Mhm. mu ne ma mais nga jóg dem ma ne ko man ñaan naa mais mayuñu ma. Mhm. te ñoo xamante dama amoon ci ñoom yaakaar. Mhm. kooku li ma dund noonu moo tax ma dem ba créer association. ma ne ci démarche yi. mu jógi dama dem opérer trois dama dama commencé traitement yi trois mois rek ubbi groupe bi. buñ ma mayee cinquante mille. ma jàppale malade. damay dem dalal jàmm gis toog ak nit sax. mu naan démb ñëwuma rendez-vous def si ma chimio wala lii ma yëkkati xaalis jox la. ñu si bëri loolu laa xamante ñoom ba ubbi association bi. des fois nit day am problème ordonnance ma woo nit ne ko dimbali ma parce que man nit ñi dañ ma yaakaar te nit ñi li ñu yaakaar amu fi. ba nii li ma si yokk kay li si yokk kay mooy ku lii ku cancer léegi ci TikTok bi sama numéro la ñuy joxe. te man awma lu ma joxe. Mhm. li ma yaakaar mooy ci nit ñi laa ko yaakaar. pour mhm. mën a dimbali nit ñi. Mhm. ba tax na dama ne woon damay organiser benn euh, programme tàkkusaanu Seydina Mouhamed. oo artistes yi. waa astafurla woo ñi nga xamante ni ñooy tàggat yonent ak conférencier yi. Mhm. ñu ñu ñëw defal ñu kii boo xamante ne benn tàkkusaan boo xamante dinañ ci mën a am xaalis. Mhm. pour muy mënti dimbali malaat yi. parce que ci groupe bi ma nekk am na si ñoo xamante ne ñu ngi bëgg a faju mun ñu faju te yaakaar nañ ko ci man. chaque jour voilà mi ngi noonu du feebaru baadoo la man xam naa li ma ci daj. parce que mu jég liñ naan bu nit di wut alal utal nit mhm. man après àdduna moo ma taxaw ba mu jege man boo ma xoolee ba mun damay toog si live sax ñuy mhm. waxtaan di kaf di footree mhm. nit ñi di commentaire yaa ngi tane yaa ngi tane ku nekk naa wayu yow mamage bi da nga feebar man waa damaa amee cancer ñu commencé ñoom ñëpp di jooy man la lan ngeen di jooy man xoola yëgalu ma ko sama yaram boo ma doo ko xool ba doo ma xool ba ne man mii lii mi ngi ci man may ñëw tamit ci li Maman Africa wax ci handicap ñun ñi ay handicap lañ parce que ku juddoo sa ñaari ween ñu dem ba éliminer sa benn donc ci mhm. handicap nga bokk mhm. te xeex boobu bés ni gi tey maa ngi ci mhm. incha allah maa ngi sa ginnaaw ndax am na koo xamante ne mi ngi ci groupe ba moom bu mu amee cancer canceru bopp la amoon biñ koy opéré dafa dafa dafa gumba nday soxna mi ngi noonu moom chaque semaine day am ordonnance boo xamante ne da koy jël ah. mi ngi noonu xool mm-hmm. chaque semaine day jël garab boo xamante ne presque vingt quatre mille. chaque semaine chaque semaine. mu jël garab yooyu. Mm-hmm. nit ku jàmbaar xale bu mm-hmm. am jom. xale bu am jom mi ngi noonu. am jom mu nekk loo xamante ne moom it noonu te noonu la jàmbaare day jënd ay affaire di ko jaayaat. moo tax lu mu jaay dama koy jënd. mi ngi noonu moo tax ma bëgg daal ñu taxawuñu ci feebar bi. di ñu dimbali surtout bon volonté yi. macha allah moo tax ma ma boole leen ak euh, maam Fatou mii nga xamante ne moom mu ngi dund fële ca Genève. Mhm. Euh, créé association am ñoo xamante ne ay partenaires am lañu di ko taxawu. moom rek euh, commencé na def ay jéego yu am solo. Mhm. parce que hôpital Dalal Jàmm boobu. Mhm. demoon na rencontré leen. ba waxtaan ak ñoom ci loo xamante ne. dañuy xool ñu mel ni yow. nga mhm. xamante ne déjà créé nañu association. ngay ñëw adhéré. Mhm. ànd ak moom def benn jumelage. incha allah pour mën a dimbali. ñi nga xam ñoom ñooy malade Issa je pense am nañu image yi. Mhm. maam Fatou euh, naka la association bi juddoo euh, wax nga ko sànq mais ca Genève taxawaay bi foofu bi nga ciy def. maa ngi remercier wa Genève gépp mhm. di remercier aussi sama jëkkër mhm. monsieur Laurent Plancherel mhm. ci jappalé bi may jappalé ci association bi di remercier aussi groupe membre comité bi wa Genève bàyyiwuma kenn ku lim da ngay juum def naa soxna si li wax daf ma xaw a touché parce que nga nek jigen juddoo ak sa ñaari wèn ben bis ñew ñu dag sa ben wèn lolu mën ta romb handicap donc malay wax ni bis ni ki tay dinaa ànd yow. ñu mhm. ànd xeex feebaru cancer. Mhm. nga nekk sama premier partenaire fii ci Sénégal. macha allah mhm. mais taxawaay bi foofu parce que en général euh, ñu ci mel ñoom seen euh, seen association yi fii xam nga amuñu doole mu ngi koy wax. léegi dañuy soxla ñoo xamante ne nekk bitim réew. mais nax ngeen di voilà image yi moo nekk nii. bi ngeen demee rencontré waa Dalal Jàmm. Euh, lan ngeen doon waxtaan ak ñoom rencontré lam moo ko indi. waaw d' abord euh, damay remercier aussi Ndiassé. Mhm. délégué médical la monsieur Ndiassé. waay Ndiassé waay sama frère sama xarit. Mhm. di ma jàppale ci association bi. Mhm. moom moo dox jéego yi. ba ñu am rendez-vous hôpital Dalal Jàmm. ak professeur Thiam. donc bi ñu demee foofu li ñu yóbboon mooy pour xam. jàngoroy askan wi. pour xam lan la nan la doomu aadama dundee ak feebaru cancer fii ci Sénégal. parce que association bi maa ngi ko euh, au niveau de Genève. mais c' pour les gens qui. Euh,

nan la toll ñaata mhm. nit ñoo am cancer fii Sénégal mhm. médecin bi ndeysaan dafa désolé mhm. ndax nit ku baax la ku am yërmande ne nga koy xool rek xam ne nitu nitu nitu neen la nit ku baax la mun ma mënuñu la limal taux bi fu mu toll ndax bari ndax bari gu cancer bari fii ci Sénégal te li ma gën a metti ci feebaru cancer fii Sénégal ku mu dal li ngay njëkk xalaat ci sa bopp rek mooy kat tey ngay dee. dëgg la te fee ci bitim réew man am naa ay xarit yu bëri yoo xam ne dañoo am feebaru cancer ñoo xam ne ñi samay collègue de travail lañ mhm. ñi samay xarit lañ mhm. am jàngoroy cancer yàlla dogal ñu mhm. faju ba wér te amuñu benn problème suuf si jël leen en charge faj leen ak dal ak calme ba ñu wér te amuñu benn bañ leen tiital te amuñu benn problème fii nag Sénégal d'abord li gën a maladie mooy que boo amee feebaru cancer yaa ngi xalaat naan fan laay jëlee lu ma fajoo parce que pour nga def radio rek déjà dafa cher. chimiothérapie bi dafa cher. Mhm. donc loolu noonu moy gëna sonal maladie ba tay seen mhm. feebar di gëna sori di gëna a évoluer xam nga di. Mhm. muy gëna metti dañ la yok feebar dañ la yokk feebar. donc docteur bi waxtaan nañoo mom mu boole ñoo ay nit wax dëgg yalla mu nekk nit ku baax. mu dalal ñu xamal ñu askanu wi li ñuy dund. ñun nak bis ni ki demb juk nañ taxaw pour and ak mom fe xeex cancer. lepp lu ñu am ci. cagnotte bi muy mhm. ci association bi mhm. dinañ ko jël ñu indi ko suñu réew fi Sénégal mhm. xool ñi nga xam ne dañoo feebar te soxla ko ndimbal ñu dimbali leen ko te yàlla tax ma ciy ñaan ndimbal aussi état bi état bi waaye surtout parce que waa bitim réew li ñuy def ñoom tam waruñu leen ko woon dàq parce que nit ki bu amee feebaru cancer kooku mënul xaar ndax cancer dafa nekk feebar boo ah, xam ni boo nee tey damay xaar ba suba mooy gën di avancé donc li nit ki toog day gën a aggravé yokk waa aggravé feebaram donc hmm. damay ñaan nguuru Sénégal ñu hmm. jàppale jigéen ñi nga xam ne dañoo am feebaru feebaru cancer. Hmm. di ko dund ci biir kër yi. di ko dund ak seen borom kër aussi ñu leen di xaw a ci kër yi. parce que feebaru cancer nekkul feebar buy wàllee man sama yaay bi mu feebaree ñoo daan bokk nii tëdd. ci hôpital bi. musuma ñëw. ñu ni ma bul jige sa yaay wala bul kii. dama daan ñëw tëdd ci poojam nii ñuy waxtaan. buy lekk. danaan ma maam te nga bàyyi ba mu pare ma ne ko déedéet yaay mm-hmm. parce que amul wàllu te ci biiram laa tëddoon te dama bëgg sama yaay mm-hmm. donc dama daan bokk moom lekk ba suur dalal mm-hmm. xelam ñu waxtaan ba heure visite bi kii bi jeex parce que dama daan ñëw 8 laa daan ñëw ci suba ba 21 heures normalement 19 heures laa war a génn mais comme ni ma bëggee sama yaay ak ni ma collé ci moom dañ ma daan bàyyi ma toog ba 21 heures 22 heures ma dem te su may dem dama koy defal téléphone am appel vidéo su ma eggee damay waxtaan ak moom ba mu ma gis ni nelaw na mhm. téléphone bi wadd ma mhm. coupé mhm. ndax cofeel gu ma am ci sama waajur ci ku lool moom ma gën a poussé pour ma def association bi may ñaan bépp jullit bépp sénégalais ñu jug dugal ci seen loxo te xam ne feebaru cancer nekkul feebar buy xaar képp ku mu dal te amoo moyen ñu jàppale la dimbali la ci lu ñu am muy mm-hmm. juróom muy fukki dërëm muy lu mu mën a doon mm-hmm. ñu jàppale la nga faju ba mën a delluwaat sa wér gu yaram ndax cancer du nekkul luy rey nit ñi mm-hmm. dañ koy am di wér comme soxna si ni mu ko waxee man xaw ma woon ni sax gën a gaaw rey cancer te nit génn na sax euh, dara dalu ko bu daanu dee donc cancer nit am na ko vingt ans trente ans dund ak moom te deewul donc du feebar buy rey négligence rek la ak nag may waxale jigéen yi aussi

il faut nga palper. palper nga xol say comme ni ko docteur yi digle. pour nga mën xol ni rek ngay def. waaw mhm. yëkkati sa ween bi. Mhm. nga def ni mhm. xol ba xam amul donju wala déet. boo paree ci bii nga defaat bi la même mhm. nga xool ndax amul donju mhm. su fekkee da gis mu xaw a dëgër tuuti mhm. parce que jigéen weenam day am toujours donju mais c'est pas que ween bi donju boobu noonu mooy cancer bi mais boo ci gisaatee beneen bul boo xam ne yaakaar na lii bokku ci war nga gaaw daw kër docteur ñu xool lan ñu saytu sa wàllu gër gi yaram ba xam lan moo la dal et soo gisee sa ween bi aussi di am ay pochette ci biir Lolo si, aussi dañ koy faral di wax ne suñu cancer la xool mhm. wala sa cuusu yoon bi fi ngay nàmpale mhm. ngay gis muy génne lu mel ay genre ndox ok loolu suñu cancer la donc may ñaan sama mbokk jigéen yi képp ku gis sa yaram mhm. loo xam ne bokku ci nga teel a dem kër docteur su ko mucc ci bi ñu dañu euh, garabu olof yi garabu olof yi waaye surtout waaye ñu bëri waay nañu garabu olof yi leen rey ak nëbbatu bi aussi da ngay ne waaye man de temps yi sama wenn dama sant nangam baaba ne la dama nga jëli euh, xasum xay <laughs> nga xooj ko wala nga dem jëli <laughs> nepp neppe daay nga dem jëli nepe di ko naan nga xëy na affaire bi développé parce que dama gis ku mu daal ko mm-hmm. xamante ne cancer du sang la amoon mu yi te pourtant ci corps bi la nekkoon mais moom jàpp nañ ko liggéeyoon ko affaire ay liggéey yooyu la muy uh-huh. dem di jël ay garabu olof affaire dem ba abattre ko abattre ko ndeysaan ci la ñu àpp doog a xam foofu la gaañu dara jàmm ci lañ doog a xam ne cancer du sang la amoon bi lay tam jàpp nañ ko liggéey quoi comme nii rek mm-hmm. commencé yëg dara naan nga dem ci benn sëriñ bu ah. kan laa gën a yeb ci sëriñ yi non du ma sëñ Mouhamad parce que suma xam <laughs> suma mm-hmm. xarit la Mara Niass rek <laughs> Mara Niass ne la non fa ngay liggéey am ko la fa def dara mm-hmm. yow fàtte nga hôpital fàtte nga hôpital wala da ngeen affaire sëriñ dëgg la ba fàtte mhm. ñu bëri des fois ñu rey seen bopp dëgg la de baba mhm. ñun Sénégal si dañoo bëgg affaire sëriñ bàyyi hôpital bàyyi mhm. hôpital loolu boo feebaree hôpital nga war a njëkk a def wala ñu ci dara nag xaar ma dem xooli olof mais Sénégal nga analysé bu ñu la ko yebal ne la wax dëgg yàlla ñu xool nañ mais gisuñu est-ce dem xool maama nii maama nii dëgg la mais Sénégal si dañoo ñemee voilà li li isa, mhm. image bi moy kuñu kuñu kuñu amputé hein ah. kuñu amputé kuñu ku amputé ku ñu amputé amputé.

xam nga association yi euh, ñii xeex cancer dañu bari Sénégal mhm. eh, te defe naa ni lu benn ak ñaar di mën mhm. ñett ko ko dàq am am na nag ñoo xamante ni dañuy euh, man liggéey naa ak ñoom daaw ci benn campagne buñ doon def mhm. donc dem naa assister seen i defal naa leen ay vidéo donc jël naa ay handicapés yoo xamante ni def nañ ay caravane accompagner leen jàppale leen Eh, te gis naa tamit aska ñu ngi ciy def ñoom liggéey bu am solo. Mhm. ndax nag Sénégal dafa bari ñoo xam ne ñu bari dañuy liggéey ci loolu. donc man dama leen wax ngeen dem approché aska parce que gis naa liggéey bu am solo bi ñuy def. pourtant question bi la ma gisee fenn envoyé waaw ne ma est-ce que Fatou. jot ngeen rencontrer wa Liska. Wa Liska Liska wa. jot ngeen rencontrer. non pas encore mais démb médecin wi mhm. fiñu ñu nonu amna am ñu fa gisantel mhm. mettre nañ ñu contact ak ñom. pour ngeen dem rencontrer. waaw man yé daw. liggéey na ak ñom daw te gis na. Yeen bis ni ki tay boole naa leen. waaw incha allah sama ko sax lay tass légui ñu ñew ñu nekk ben association. Inshallah. allah exactement man ñoom dañoo am dañuy liggéey ak ay bailleur international ak mhm. national. te li li ëpp solo ci li ci am solo moy que au plan national mhm. dañ ci am ay ay base mhm. ay représentants mhm. donc li ñuy tasee ku nekk dem fii dem fële mais ñu booloo defe naa ni waaw nekk benn bloc moo ëpp solo moo ëpp doole koo ci gis tey nga woo ko baaba na ko kaara ñu booloo bu bañee mooy def bëgg dóor bëgg dóor vraiment bëri ñuy créer association pour defaral seen bopp la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la du pour malade dëgg la amuñu këyit mi ngi noonu am am nga loo ma expliqué ci ci téléphone bi dama kenn koo xam ne da nga gisoon ci TikTok bi mu expliqué dafa am ko am cancer dañ ko war a jàppal nangam mu ne ko léegi jox ñu contact kooku mais femme bi ne du joxe contact bi ah <laughs> loolu moom dóor la amul dafa créé malade bi malade amul fa mais loolu pour lan sax mu ne ko dama koo xamante ne suñu représentant la ma nga Sénégal ngeen ànd dem yóbbul ko ndimbal bi femme bi noonu nañ ko jox ndimbal bi directement ah déedéet ñu si bare nag dañuy dóor ñu si bare dama gis am dooru sax mais bi dafa commencé bari loolu xam nga jalousie parce que wala cancer bu xam ne ay fo la ay fo la bëgg damay naan la am numéro ma ngi directement pare ci pare ñun daal képp koo xam ne am na feebaru cancer ñu bëgg ko jëmbali mhm. dañ ngay mettre dañuy mettre contact ak malade malat bi wala soit association comme soxna si ñu ñëw waxtaan ak moom Ndiassé mu ngi fi mooy suñu représentant donc dina ñëw waxtaan ak yow lépp lu ñu ko war a jox moom dina ko joxe te moom délégué médical la aussi ci wàllu garab yi ci moom lay gën a oyofee parce que boo ko waree jënd cinq mille moom bu jaaree ci moom war na mën a dina waa dina dem 2000 wala même 1500 donc képp ku bëgg ku am feebaru cancer bëgg ñu jàppale la. ñun pare nañ taxaw nañ pour jàppale la mais da ngay wan lu leer nañu wan ñu profil leer nañu aussi parce que ñun duñ dox ci serpent lépp lu ñuy dox nii lay demee. ndax lii mhm. man dama ko dund. gis ko mu dal dund ak sama waajur mm-hmm. xam lan mooy feebaru cancer ndax bu njëkk man xamoon luy cancer dama ko daan dégg te dama ko ragaloon sax mm-hmm. tuuti déjà rek dama ko ragaloon mm-hmm. mais bi ma demee ba gis ko mu dal dund ak moom ba mu ñàkk ba kenam laa xam lan mooy cancer comme Yves li nga wax sànq rek ñun sénégalais xam nga lu ñu tardeel garabu olof parce sama yaay bu mu amee woon cancer moom lu mu doon wax ay reen ay sunguf dëgg la lu ko a waay lu ko gën a jàpp loolu ci la bokk waaye parce que da doon naan toujours ay ngi ay affaire yu kii yooyu noonu garab olof moom lu mu doon def mhm. yërmande ci doomam yi mhm. comme sama bi maa ngi koy nuyu de passage mhm. Elgey sonn na ci trop ndeysaan ndaxte dafa bëgg yaay moom nangu loon gëm sax kan yaayam dafa am cancer ndax bëgg gu mu bëgg yaayam soo mosaan wax sama yaay dafa la am man di ko natt naan centimètres yi fii la toll fi la mm-hmm. toll di jox sama yaay courage moo tax bi ma bi ñu hospitalisé sama yaay France bi ñu mm-hmm. jour bi sama yaay euh France parce que mm-hmm. Charles de Gaulle la wàcc bi ma demee jëliko ma yóbbu ko hôpital sant Saint-Étienne moy bi côté Lyon. Sophie sama mhm. benn yaay bu aussi mhm. de passage. Mhm. jappalé na ma trop. donc buñ ko hospitalisé médecin ko dañ mère donc d'ici un mois un mois dix jours. la war a te loolu dafa non c'est pas vrai. parce que sama yaay amul cancer. tumeur eggagul fenn waaw parce que loolu la gëm ci boobu parce que dafa bëgg yaay te dafa sonn ci mhm. yaayam te dafa mhm. bëggoon dafa amoon mhm. yéene ci waajuram bëgg a eggale yéeneem boobu far yàlla suñu borom ndogal li gën donc mënuloon gëm ni sama yaay phase terminale la nekk donc bu ñu fajee sama yaay France def euh, vingt cinq jours après waa France vraiment médecin yi jàmbaar lañ mère bi elle était bien là-bas ñu benn problème après sama yaay mu man bëgguma fajoo France je préfère nga yobuma Suisse ndax dégg naa Suisse. ñoo dàq faj te sama yaay dafa bëggoon wër mhm. parce que dafa nekkoon mère bu am yërmande ci wa ci ay domam bëggoon gungé ay njabootam. Mhm. donc mom wax nañ ko médecin wax nañ ko ko ni ko mhm. da nga wara a dem d'ici quelques jours. pas pas des mois sax mais jour lañ ko wax. mais mënul won bëggul won dégg lolu wër rek la gisoon te doon téye sama loxo nii maam maamun ma. dimbali ma ma wér même bu may dundaat deux ans sax ma dund ko mais defal tout le nécessaire pour ma mm-hmm. wér mm-hmm. man tam dem naa benn instant su ma su ma su ma médecin woowee ni ma mère bit li ko desee ay mm-hmm. une semaine deux semaines dama daan ñaan yàlla wallaay xasim ci télé laa nekk ni yàlla boo naree jël sama yaay jël ma man ma dem ndax ndaxte dama bëgg sama yaay dund ndax sama yaay dafa bëggoon njaboot sonnoon ci njaboot wallaay xasim plusieurs fois ñaan naa yàlla suñu borom mu jël ma man ndax man dund naa bànneex dund naa tuuti te sama yaay mag la jaarul ci ay bànneex jaarul mm. dafa bëggoon lépp àddunaam bépp daf ko def ci njabootam du coup mhm. yàlla suñ borom ñëwee noonu bi ma ko indee Suisse mhm. parce que loolu man xamal naa ni day dem mais moom mënul comprendre waaye mu ni ma yóbbu ma Suisse mhm. bu ma ko defee foofu dinaa wér ndax dégg naa ñoom ñoo dàq faj cancer ma jël ko yóbbu ko Suisse andi ko bi ma egsee Suisse yi xool ko ndax ni ma la même chose que li ma français wax ni ma sa yaay 15 jours a ko phase ah, terminale la nekk ma waat sama mag bi aussi el ñëwaat ndeysaan da doon bagante boobu el mi ngi opéré tu te mooy mi feebaroon mais da doon def bagante Belgique Belgique France Belgique Suisse mm-hmm. noonu la ko doon bagantee ndax mm-hmm. bëggul ñu woon sama yaay vidde parce que dañu doon bëgg chaque jour di ko épaulé di ko mm-hmm. dalal xelam di ko Suisse yi wax ma aussi la même chose ni ma sa yaay day gaañu ñun el toujours mu ne ma tumeur la eggagul ci cinq centimètres trois xamna mi may dara sama xelu yaay ñuy dem di dem di dem bañ ni ma sa yaay 48 heures moko déssé sama yaay nak dan ma ne danga may défal promesse parce que man mënuma bëgguma déwé Suisse way suma sañon sumay dé damay dem ci sama kanamu njabot yi parce que bëgguma tuba tuh babi ma parce que dafa nekkoon maire bu sel magu l'islam ak bu am diiné man ma teniral ko promesse am ni ko mm-hmm. yaay mun naa ko bu fekkee man yàlla bëgg na ma mm-hmm. su fekkee dalaa nar a jël fii ci suuf man yàlla na ma jël yow ta nga ta dund mm-hmm. ta nga delluwaat sa njaboot ma jàpp julli woor wooral sama yaay wallaay laasim wooral ko mm-hmm. ñaan suñ borom ni ko soo naree jël sama waajur yi mm-hmm. jël ma manta nga bàyyi ko fi mm-hmm. ba mu delluwaat ci njabootam ma wax maa ngi nii sëñ Mountakha Bachir aussi mu yónnee fa ah. ñuy ñaan ñu wax ko ko waaw vraiment waaye ah, moom tam ndeysaan mu def ci mu ñaan ci incha allah rabbi dina dellusiwaat bi sama yaay ñëwee deux jours lañ fi def mu gaañu loolu yàlla dogal macha bala ngaa xam ne nga liggéeyal sa wajur dëgg dëgg dëgg mu dem bala fi boobaa ngay gis njariñ yëpp ñu feeñ quoi parce que tey sens bi nga am tey boo yeboo na nga sant yàlla bu baax am na koo xam ne tey assisté ba yaayam daan dem fekk ne tukk ne wala dem na feneen wala ne ci leneen ñu woo ko ne ko lii am na lii début jusqu'à la fin sa yaay mi ngi feebar yaa ngi ci wetam a dëgg yàlla après lañ sa ñaan nag di gën a nangu bu la neexee boo jaaxlee sax bul dem ci jullit rek nga ñaan tëdd. Mhm. parce que gàllaaj gis nga gis nga dafa am lu am solo lu mu wax sànq fi ma bëggoon dugg. dafa am mag moom mosoon wax di nga am téere mu réer. Mhm. nga am saafara mu tuur. Mhm. mais ñaanu woy jur du tuur. du tuur wallaay tey koo fi gis rek. buñ la nee balaa ñooy def xaar leen ba mu ñëw. yaayam la liggéeyal. ba mu gërëm ko. comprendre nga parce que tey. njariñ yi daw ci suñu yaay yëpp. balaa yàlla duñu ko fay rek woy jur bi làqu. danaan la léegi. li nga liggéeyoon ci at bi yëpp. Mm. mi ngi nii am. Mm. fay naa la ko kon yaakaar naa ni loolu sant yàlla la. sant la bu baax ku nekk rek nga cofeel bi nga xam ne nii mi ngi sa yaay man sama yaay su ma seen wax rek sama yaay mi ngi dund de mais su ma waxee benn wax boo xam ne nii day faral di ma ko sax jur. Mm-hmm. gisuma ndey gisuma baay gisuma jëkkër ñett ñëpp dem nañ. yow laa am. mais loolu dafa am. nu lay dafa am nu lay def. quoi dafa am lay def waaw mm-hmm. yàlla dina la may loo xam ne nii. da nga koy parce que tey jii bu doom baaxee dañ naan la ndey ja. dëgg la kenn du la ne papa ndey rek la ñuy wax éducation tey dama jàkkaarloo ak yow rek. Mm. dafa am benn. respect bu mag bu ma gis ci yow. Mhm. tey la ñuy door a gisee mais ku la gis mhm. da jox cër. parce que déjà respecté nga sa bopp. Mhm. boo ku la gis rek. dina la jox cër suñu yaay yi daal dañ leen di ñaanal rek yal yàlla guddal seen. amiin amiin nga xam yàlla dem nañu. dañ leen di ñaanal njaboot gi ñu fi bàyyi yàlla na gën. amiin amiin amiin yaa rabbi macha allah am na solo man sama yaay 32 an ci ren. Ah, bi mu gaañoo. donc xam nga kon bi muy gaañ man xale laa. donc ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal moom tamit ak bépp waajur bu bu dëddu Euh, parce que nag euh, balaa ngay xam na njëriñu yaay wax dëgg yàlla nga ne ci ay situation nga ah, billaahi saa yoo jaaxlee rek di nga xam ne yow sa yaay wax dëgg yàlla liggéey na sa kër baay nit bëgg a def dara sax du sotti ne liggéey sa kër baay moo tax sottiwul des fois sëriñ bu mm. njëkk mooy yaay waaw bu njëkk mooy yaay donc macha allah am na solo ñu ngi nuyu waa El Gueye ah. xam naa ne mu ngi mu ngi Belgique di ñuy seetaan ah, ak Fa ak la famille mon ami Fallou léegi xanaa léegi grand la nag. Fallou mom léegi xana grand la quoi. Eh, maa ngi koy nuyu ak toute la famille ñom ñep ñogi fofu foofu. macha allah ba léegi muy lu am solo euh tay buñ ñëwaaté ci association yi fi nek maa koy wax sànq déjà pour association ñu reconnaître la mais il faut nga may këyit. Mm-hmm. te Sénégal fi gis nañ ne association yu bëri amuñu këyit. ñu mm-hmm. bëri amuñu këyit tuddee seen bu association. te pourtant nga def outil këyit association. lu yomb la boo toolee président bu la né jox ma këyit yi nga looy wax. Mhm. mais looloo fi nekk actuellement. Mhm. baaba man xam man créé naa benn association te dama ko bëgg def fondation. Mhm. mais soo gisee ba léegi ñe bëgguma ko fësal. par respect. këyit yi parewul këyit yi parewul wallaahi. te pourtant depuis daaw créé naa ko. mais këyit yi dafa am ay affaire yu ko yu ko kawoon a kale. moo tax bëgguma ko fësal. que taxawal naa association. parce que dama bëgg man ku ma woo. Mm-hmm. dama bon sa association bëggoon nañ la jàppale. Mm-hmm. mais est-ce que am ngay këyit. Mm-hmm. man en tant que man ma nekk ci télévision man. di naan ay ku amul as ku amul këyit. waruñu la reconnaître <laughs> man ñu laaj ma ne ma ànd sa këyit association ma naan ay aw ma këyit. aw ma këyit wallaay. depuis presque deux ans. Moo Ndiaye maa ngi ko ci nuyu grand Moo Ndiaye bu New York ak Griff Sougou. ñoom ñoo ma njëkk a wax créer association parce que dafa am benn jour ci Covid bi. ñu seetaan émission bi am ñu ma woo man en direct di ma ñaan ndimbal quoi man. man di ma ñaan ndimbal ne dama ñu bëgg ma jàppale leen parce que xam nga boo xasee ba feeñ télé sutura loolu ma yàlla moo lay suturaal sutura yàlla la quoi day jàpp ne mën nga régler problème bi yëpp mhm. chaque jour nga jot benn lettre bu la bàyyil ci télé bi mhm. nga ubbi ko dem ba sa kër gis yi dama bëggoon nga dimbali ma mm, sama location fayu ma mm. dama bëggoon nangam sama doom bi jàngeetul mm, wala nga dem sa buntu kër nga jékki-jékki génn kenn dogaale la ne sama doom yi tey reeruñu mm-hmm. wala ma bëggoon nga jàppaleen seen al seen jàng dafa mm-hmm. commencé yàqu parce que ñu fay mm-hmm. griffe Sougou Si mhm. ci biir émission bi mu woté mhm. dama la 100 saaku ceeb. Mhm. ak gros sucre, may ko kula la neex. ma créel créel association la fondation ñu parce que xam lay laaj mais ñun comme ça ay grand lañ ça ay nit lañu. dinañ am luñ lay chaque fin du mois ñu am luñ choses pour nga vous mëna donc motax ma association Euh, taxawagul comme ni ma ko bëggee. Mm-hmm. waaw moo tax ma bëgg def ndànk. Mm-hmm. bëgguma ñu may woo maam Fatou mi war maa woo ne ma mm-hmm. sunu partenaire dañ la bëgg a dimbali. mais foog ngay ndey këyit maanaam ko këyit bi pareegul <laughs> donc macha allah am na solo. maam Doppa fan ngeen toll ci ci liggéey bi parce que am na aussi benn incident boo xamante ne am na fi. ci diggante bi ci loo waxoon. ba après voilà gars yi ku nekk di wax. Euh, Sénégal nag moo mel noonu. boo jiitee am ñoo xamante ne il faut que ñu wax ci yow. même boo leen deful dara. il faut ñu créer benn wax. mooy bi nga wax lu jëm ci wàllu radiothérapie yi ba ba ba tudd ci hôpital bu Touba bi waaw li may wax rek à chaque fois nee naa fu ñu ma mënti oo mhm. dama si waxaat mhm. ndax euh, man faat wax na ko sànq mhm. ci ñi nga xamante ne feebar nañu war a xaar am na ñoo xamante ne ñu ngi war a def radiothérapie war a toog di xaar sept mois rang boo xamante ne kenn xamul fu mu toll pourtant man xam naa ci dara. Mhm. mais kaasuma loolu xam nga la laa kaas. Mhm. nañ ñu yokkalaat radiothérapie comme sa xaar bi dootul am. Mhm. parce que dalal jàmm la am. ak euh, euh, Touba. dama am ñaari malaat yu nekkoon ci sama association bi. ñaar ñi ñoo waroon defi ji scan kii defi radiothérapie ñu ne leen dafa paan. kenn ki ñu ne ko demal Mamel. keneen ki ñu ne ko na dem Touba. léegi bi ñu waxee loolu ñoo ñu wax ma loolu ma ne comme nit ñi déglu li nit lu muy def rek mu ànd ak gëm ànd ak dëggu rek. ak ngay def te yàlla rek tax. yàllaa lay taxawu. dama ak sama bopp neen toog ñii di waxtaan rek. sama ñaari malaati oo ma wax ma rek ma ne non il est temps lii nag depuis daaw maa koy waaj. Mhm. def benn vidéo mi sama page. ni viralul. ok mais dama toog jàkkaarloog photo maam Seydi jàkkaarloog sëñ Babacar. ñu ma daati wax ma sama rangoñ yi wadd sama dënn. Mhm. ma taxaw ma ne sëñ Babacar maa ngi lay ñaan maam mhm. Seydi. Mhm. vidéo bi su ma ko defee balaa 24 heures yàlla na egg ci loxo Diomaye ak Sonko. barke salaatu faatiha ma dogg ko. daal def vidéo bi. ne salaamaaleykum maa ngi ñaan état nañ ñu jàppale. ndax radiothérapie. dégg naa tuubaa dafa paan. dégg naa Dalal Jàmm dafa paan. te malaat yi ñu ngi xaar. Mhm. may ñaan nañu état jàppale ñu yokkal radiothérapie ci hôpitaux yi nga xamante ne mhm. xaar bi dootul bari. Mhm. pourtant mënoon naa wax ne dee yi ñu ngi bari wala lii mais waxuma loo dama ñaan ñu yokk. radiothérapie bi. vidéo bi sa xam naa ku dem jot nga ko. ndax vidéo bu viral la. vidéo bu viral la. ñëpp d'accord ci li ma wax. am ñu ma ne Europe ñu xam benn groupe bu mag dañ ma doon yónnee retour yi après dama togg di sant yàlla. parce que ngay jaamu yàlla di def te yàlla tax mhm. yàlla lay taxaw mhm. ma ne tey def naa vidéo bi am retour mhm. yoo xamante ne dañ ma ne bu même bu ñu état jàppalewu sax dinañ fexe nu ñu def nu ñu def ba ba ñu am radiothérapie loolu du sakk ma ne leen yéen médecins yi da ngeen ma waroon a encouragé ndax man malade laa mënoon naa ne defuma radiothérapie te pourtant waroon naa def radiothérapie parce que dama toog 6 mois sama opération dafa toog 6 mois samay résultat génn loolu tax defuma radiothérapie te pourtant Touba lañ ma samay sama doom yi ay xale lañ. Mhm. ñu waroon jàngi tombé juste école di waaj a ubbi image ne ma waroon defi radiothérapie Touba kan laay mhm. bàyyi samay doom. Mhm. gisatuma ndey gisatuma bàyyi. samay doom may xalaat loolu di ko jooy. ma ne léegi nañu fexe nu ñu yokkee radiothérapie lii da laa ñaan. ñu teg wax ji foo xamante teg ñu taf sama foto di naan fenkat laa mhm. lii ma def nangam Touba paanu nangam ak nangam te maa ngi woon nag preuve sama téléphone mhm. ñii biñ ma woowee di ma wax ne ma kii ma ne kon xaar ma jóg def kii mhm. mais bu doon dama dugg wax sax ne radiothérapie nangam ak nangam tëb ne rajo Touba dafa paan rek sax waxuma lu kii nga mën a wax mais li ma wax dafa am mais ñu indi ma si scandale boo xam ne dama kaa jooyee ba mu jëg dama ne bàyyi naa social sama mbokk yi di ma oowee fu ne ne ma yow ñëpp rafetlu ni ngay feebaree di xeex cancer yow lii nga def ñu war la ci encourage nga njëkk ma si lu ne ba ba naa ba waa hôpital Dalal Jàmm après ñoom kii directeur bi ooma ne ma dañ naroon porter plainte mais dañ ne comme malade nga moo tax ñu bàyyi xoolal loolu ah ñu ne dañ may porter plainte parce que lu ta li ma wax amul mën leen xamal naa la waa dala Jàmm xam naa la waa asma dañu am groupe WhatsApp boo xamante ne waa asma foofu lañ nekk madame Camara xam naa ko mais bu doon tey jii dama tëb rek wax ñu mën a wax mais malaat benn malaat bi bi mu gaañoo ça fait juste deux semaines ma leen di di jaale suñu famille bu baax a baax beneen malaat bi mi ngi nee urgence euh, principal ça fait deux semaines mi ngi hôpital may ñaanal ñi nga xamante ne ñoo ci wàññeeku ñëpp ñëpp ñëpp yàlla yërëm leen xaare leen aljana loolu daal mooy sama xeex te loolu moom boo ñu si dimbalee tamit mam faatu ba ñu mën a am ay radiothérapie dina baax incha allah parce que xaar bi métti na. ñaari rajo doyul si Sénégal doyul si loolu de la loolu de laa ñaan loolu laa ñaan parce que xaar bi moo métti. am na ñoo xamante ne dañ leen ne ba 2005. Mm. kiiwuñu amuñu mun ñu am rendez-vous. 2025 kon 2025. xam nga mm. loolu métti na. loolu rek laa ñaan. mais pour def question pour def ah. chimio non non def rajo xam nga ko. xaar bi yàgg na balaa xaar bi ñëw kenn waxatul mi ngi noonu déjà sama malade bi xëy na. Mm-hmm. mais fajiwul benn jour la def simulation bu defee simulation si la commencé woon am problème. Oh. loolu rek la. mais waxuma ko ah. woon pour dara mu nekk loo xamante dafa mhm. metti tam mhm. dama si am lu ma metti mhm. parce que yàlla taxoon may def <coughs> yàlla moo taxoon may def ma am ci loo xamante ne lu ma metti sama doom bi toog di jooy laaj sama doom sax dafa def vidéo di jëy moo mën a dindi ko parce que dafa dafa ma metti woon daal dama doon toog di jooy nekkatuma woon nit Sénégal moom bu nga boo bëggee noppalu ko ah, mm. nga boo jiitee benn mbir mm. xam nga yàlla. dëgg la ku bàyyiwul yàlla. doo bàyyi kenn doo bàyyi nit doo bàyyi doomu aadama ak sëriñ yàlla mm, mm, mm. dafa wax yàlla ne ko. dama bëgg nga musal ma ci làmmiñu. làmmiñu doomu aadama wallaay ndax ñu leen ñu moo koy wax yàlla ne ko yonent yàlla Moussa li ngay ñaan man mi aw ma ko. jaani maa leen sàkk te saa ñu xëyee man wax ci man loo ma ne amul. wala ñu jiin ma ne dama am ay doomu yoo xam ne xamante mooy malaaka yi. dëgg la il faut avoir la tête dure. Mhm. et un mental de fer. pour faire li nga Et on mhm. yow nga ba donc loolu tant yaa ngi koy doxee dara du la sax parce que gis nga ñooñu génn def bi vidéo noonu dañuy wax xamuñu ci dara xamuñu ci dara di ma saaga lu ne yëkk nañ ah, mm. mm. noonu la mënee fen xoolal loolu noonu ma ci gën a métti ah, ay góor ñoo ko doon def ah ay góor li ko di ko di ko di ko yàq quoi ay góor quoi billaahi ah. bu leen sax diglu ay góor kenn ki tontu naa ko dama def vidéo tontu ko ba kenn ki moom tontu woon naa ko mais après laa ko di sama sama tante woo ma ne ma buñ la gisati sax si réseaux sociaux yi ngay man leen man li may xeex dama ko dund mm-hmm. bugguma nit ñi di ko dund parce que am na ñoo ne ñu ngi toog seen kër yi xoolal sama association bi mm-hmm. am na ñoo xam dañ daan toog seen néeg yi di jooyo jo mii kenn jooyatul mm-hmm. ku si stressé sax dugg ci groupe bi ni génn leen ñu waxtaan ni di leen delloo si loolu dafa neex ah parce que tey ji man mënoon naa ne dama dund feebar bi duma tal sama bopp wala may tal nit ñi mais damay fàtte sama feebar di waxtaan nit ñi ba démb moo ci mujjee fekk bërka ça fait trois mois na il faut que ngeen génn ngeen jéem a jël poste yi pour ma mën a taxawal kayit yi mhm. ndax man yàlla may na ma connaissance man mhm. mhm. leen defal leen kayit yi liñ naan booy def lu baax yàllaa la gën a yàllaa la gën a baax tey jii def bu ngeen defaree kayit yi ñu mën a déposer parce que ñu bari dañ lay bëgg a laaj des fois say kayit mais doo am xam nga doo am doo am loo xam looy wax mën leen léegi su ngeen kiyee bu ngeen sàggo dama koy tas parce que kenn nangul jël poste te man kese mënuma kon nañ ngeen toog waxtaan six mm. person su lañ do man leen bu ngeen waxul damay xëy rocci leen yéen ñëpp mm. parce que li may def pour seen intérêt la mm. mënoon naa toog man ñaanal man sama bopp ndimbal ndax maa leen gën a sonn mm-hmm. dégg nga mënoon na ñaanal sama bopp ndimbal mais yéen laay dimbali mm-hmm. ah kon nag na loo xamante ne da ngeen di génn ñuy dooga ñuy dooga ñuy dooga nangu am na loo xamante ne Africa euh, Burkina demoon nga fa def naa am nañu image Issa euh, image yoo xamante ne mm-hmm. andi fashion show dañ leen fa invité woon lan moo nekkoon but bi waaw DJ maa ngi lay remercier waat encore euh, di wax Burkina. Euh, Andy Fashion Show prix bi li tax mu indil la ko. bi ñuy def lancement Andy Fashion Show dañu ñëw fii ci plateau bi. ci defe naa fi lañ defee lancement bi ñu def lancement bi. Euh, vraiment nga am ci taxawaay bu am solo. ñu def Andy Fashion Show. ak ay moyens yu difficile dañ ko defee. ndax dañu créer RAFEC réseau des femmes handicapées entrepreneurs culturels et artisanat. On est plus de 350 femmes. Mhm. On a des membres partout dans les 14 régions du Sénégal. Mhm. Et je pense que ni biñu ñëwé euh amoon def nañ li nga xamante ni lañu wara def. moy mhm. femmes ñëw nañ té festival bi li ci defe naa ni premier festival bo xamante ni ci Afrique. mi ngi am Andi Fatan OK moy festival bo xamante ni. andi yi dañuy défiler euh amna mode amna musique amna danse. am théâtre amna artisanat d'art am na forom forum boo xam ne lañ koy def handicapé ñoo koy liggéey ñoo ko ñaw waaw sama waa réseau bi parce que ci réseau bi ci mhm. lañ copté ñëpp ñoo ko ñaw mhm. ñoo koy défilé mannequin yi handicapé lañ defe naa invité def nañ plateau fii ak ñoom ci ci ci góor ñi ah. exactement exactement ngi nekk ay mannequin mhm. euh, bi may créé festival bi yéene bi ma ci amoon mooy que ni défilé bi moo nekk nii ah? waaw moo nekk nii secteur bu ci nekk ku nekk na ci gis boppam mhm. donc ci la contacté ñëpp mhm. bépp handicapé boo xam ne yaa ngi def mode yaa ngi def musique yaa ngi def mhm. théâtre woo naa la ñi nga xam ne disponible nañ am nañ jot ñëw bokk bokk nañ ñëw nañ liggéey nañ ak ñoom ci jàmm ak ci salaam li ci am solo nag mooy li nga xamante nii mooy di mooy mode bi parce que mode bi borom festival borom festival bi <laughs> <laughs> ndax mode bi euh, nekk na loo xamante ni Euh, dafa am ay ay ay ay handicapés yu nekk ci fa tey mhm. fii Sénégal dañuy bëgg di diaboliser nit ku nekk ci fauteuil euh, donc su ma jëlee tey exemple ci Ndeye Maguette mhm. bi ma ko contacté na ko dama bëgg nga ñëw défilé mhm. mu ne ma sama rêve la mais moom Africa fi ma dëkk dafa sori donc condition yi dafa xaw a métti donc jour yi ñuy ñëw di def euh, répétition yi albinos yi waaw petite taille yi donc man handicapé yëpp yëpp laa épargne ci biir parce que dama damay def chaque jour dama naan man aw ma droit def erreur ci li may liggéey. Mm-hmm. parce que bu jàng jotee jàng naa nag. defe naa école des